kon yónnent bi ko yàlla yónni du ko mën a matal ni ko nit ñi lépp jibril di wax ak moom ndànk pour miin ko di wax ak moom noonu mankat kat dañ ma yónni ngir ma indil la doom ju sell liggéey fa yàlla damay amee doom te mosuma am rapport ne ko ah loolu lu yomb ci suñu borom la ah kay fi ñuy waxantee noonu ba nga xam ne eh, Sayyidatuna ma familiarisé na tuuti ak Sayyiduna eh, Jibril ñu ne bi nga xamee ne comme ni mu koy contempler mu nekk jeune bu rafet noonu bu dee bu dee doomu aadama kese nit keneen ku dul Mariama ci misaal misaali leen ko dana mel ne que affaire xelu mbiru góor ak yooyu nekk na ci xelam. Euh, ci diggante boobu nag Seydina Jibril soog a ëf roox Isaa gi ci poche Sayyidatuna Mariam li nga xam ne moo rax kon Isaa ci lu jóge ci doomu aadama tooyaayu gëm ñi Seydina Jibril. ak xalaat yi nga xam ne moom la Sayyidatuna ma doon xalaat ci kanamu ah, xale lu góor bu rafet boobu li nga xam ne mooy am ci nit koo xam ne jigéen la ci diggante boobu jaxasoo moom mu am kon nature boo xam ne une nature bu nature bu angélique maanaam bu malaaka ak bu nitee alquran ne inna masala isa inda ka masale aadama xalaqahu min turab isa ni mu deme mu mel ni aadama rek aadama ni ñu ko bindee ci suuf ëf ci roo eesa noonu la deme ñu bindee ko ci diggante doom aadama ëf ci roo ñu ne loolu na mën a demee lu tax ñu tuddee ko kon ruuxullaahi wa kalimatuhu ñu ne ruuxullaahi ndax roo gi ba muy ñëw ba bi muy nekk ci Maryama dafa indaale léppam nga xam ne taasiir rek lu néew moo ko rax moo tax ñu ne ruuxullaahi mooy ruux gi nga xam ne Seydina Jibril dafa jóg ci yónnent ngir ëpp ko ci Sayyidatina Maryam wa kalimatuhu mooy kun rek lañ ci jublu ka masali aadama xalaqu min turabin summa qaala lahu kun jooju mooy kalimatullaahi kon kun jooju moo nekkal aadama moo nekkal leneen lépp lu nekk moo nekkal Isa itam du ca génne Isa dafa juddoo ci ni ni chrétiens yi wax verbe de verbe bi mooy verbe kun rek fa yakun comme inama amru ila arada shay'an yaqul lahu kun fa yakun rek lépp lu mu nekkun nag loola dal di nek mais comme isa ruh la ta ruh lu mu laal day dund misalon nako ci samiri yu li tax mu meuna tabax yëkku wurus ni dégg nga fexe ba muy noy di dox di nañ isa itam noonu mu nekk won ro nga xamné lu tuti moy nekk ci mom nit ba tax na sëyul li nit ñi def lu ci bari defu ko roo gi mu nekk moo tax mu mënoon jàpp ban tabax ko ba mel ne picc mu ëf ko mu naaw wala mu tabax ko ba mel ne leneen mu ëf ko mu nekk loola di dund moo taxoon mu daan fekk ku dee mu laal ko mu dekki moo taxoon mu daan fekk ku juddi amul amul ay bët mu raay ko mu am bët kon roo dafa am ay particularités am roo ci boppam nag lu kaawteefe la moom it ay conférence yi conférence xaj na ci biir laajoon nañu koy nante islam way salum añ roo dafa gudd kon mu gàttal kon laaj boobu noonu lañ ci di tontu woon allah ci kii troisième question. Non, non, non. Euh, fait quinze minutes. quinze euh, minutes. l'autosatisfaction troisième question. Mhm. l'autosatisfaction euh, dans le bienfait est-il nuisible à la pratique musulmane euh, et sa finalité, c'est-à-dire l'accession près de Dieu, plutôt auprès de Dieu. Mhm. Euh, mhm. nous voulons parler de, du terme wolof, naw sa Dieu. c'est là. naw sa jëf xam ngeen ko ab góom la sikk la yàpp yàqu-yàqu la ndoxum la waŋ na la moom day yàq jëf jëfi nit ki am na nag naw su jëf ay tolluwaay yu muy toll nit ki nit ki fekk amul fatxu fekk fatxu wuñ ko jëfam day màgg fi moom lu mu góorgóorlu ba def ko rek te mosu ko woon a man wala mosu ko woon a def day dal di réy fi moom ko yàlla yërëmul rek mën na daal di defee ne keneen ka deful lu mel noonu moo ko gën fekk amul fat bu amee fatx nag ni ko sëñ tuba waxe ci xoqa bane fil bidayati bane xaalal bidayati ma xaala ne منها تواضع منها التواضع للقهار مالك حال البدايات مع حال النهايات إذ في البدايات خوف الذنب يزجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات نيغا خامني bokk na ci jikkoy gaay yàlla yooyu tawaadu mooy toroxlu suñ tubaab nee na ndax jëf ji boo gisee ne ci yow la jógee yaa ko def rek mën nga naan sa jëf waaye boo xamee ne jëfuloo dara yàllaa ko jëf moo la ko moo la moo tàggat say cër sant la ko nga xam ne amuloo ci dara amuloo ci jëf ji dara ni nga xam ne nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na suñu borom dana tàggat jëmm joo xam ne ah saay saay la mu dimbali diine ji kon yow ndab nga loo xam ne rek dañ cee sotti loolu boo xamee ne xam nga ba xam da nga xam ne jëf yi yëpp jëfuloo benn jëfuloo ci dara lu jëriñ yàlla ñaar xamuloo ne li nga jëf yëpp nangu na ko wala nangu ko ñetteel bi du caagéeni benn mérite boo ci am ndax yàlla moo sant moo la sant nga def ko bu ko santoon yéefat bi mu def ko sañ loo ko bañ bi koy def kon doono su jëf mu ne tawaadu boobu toraxlu boobu nga xam ne bokk na ci seen jikko ñoom gaa ñu baax ñooñu lil qahaari ndax yàlla not gi mu not lépp luy bindeef nga xam ne dañuy teewlu màggug suñu borom gi ak nameelam nga ñu xamul lu mu doon ak lawx mahfuz fañ a ca bindee boo xamuloo texee ak texee la wala texee di te xamuloo lu mu doon foo toll da ngay tiit foo toll sa bopp foo toll da ngay da ragal ndax ka gën a jege suñu borom ni ko sëñ Moussa Ka waxee rek ka ka jege ba ne ka jege pay bay gën a gis tiitam ka jege ka gën a gën a gis nattoom ya ka jege pay bay gën a gis tiisam ya te bala laa wóolu ba jox la durée nga muñ ñenam ba aw ci tànn ci bëri lanabluwannakum bis-saabiriina ahasiba naasu lil-kaasibiina moom la ñu waxoon yeneen yaag ab daal ak xutbu yaag wàllu yaag awtaat ya ne nga kon minha tawaadu lil qahaari notkat boobu nga xam ne ci turu qahaar woowu dafa not lépp nga xam ne daanaka kenn awul benn mérite buñ ko seetee ci xaqiqiyan ca la nga jëf ndax lépp yàlla la ko sant ci tàggatam ba mun loo ko mun loo ko basañ bañ ñooñu dañuy ragal suñu borom rékki li mu leen jox ci leer ci xéer leen ci loolu fu ñu toll dañ koy dañ ci dañ ciy tiit fu ñu toll dañuy tiit ci réere gi ñu réere seen mujj mbir ci lan la ñuy mujj ni nga xamee ne doomu aadama dana jaar ci yoonu àjjana di ci jaar di ci jaar di ci jaar ba senn saa rek defe ko mu jàdd jëf-jëf